ngeen jot a jot moo donc juste pour diir rek dama doon euh, jël congé. parce que mhm. liggéey bi ñu mu ngi ñuy xaar. Mhm. Euh, di sant ñëpp waaye di xam ne di xamal nit ñi ne yàlla du wàcc tabaxal kenn këram. Mhm. yàlla du wàcc xeexal kenn xeexam te lépp lu doomu aadama mënal boppam. lépp lu doomu aadama mënal boppam. yàlla teggeeku na ca. kon lii ñun ñoo koy fajal suñu bopp ngir taxaw ngir défendre démocratie taxaw jàkkaarloog ñii bëgg a sànq Ousmane Sonko parce que bu ñu jógee ci Ousmane sonk dana nu dal ci kenn ku nekk ci ñun. bu ñu jógee ci Ousmane sonk mën nañoo nasaxal kenn ku nekk ci ñun. bañ ko defee ci Karim Wade noonu la ñu ñu doon wax. Karim Wade xanaa dañ koy toppee cent trente six milliards soxlaw ko. ok lu ñu ko def dugal ko ci avion génne ko ne ko boo dugg see ci réew mi di nga ñu fay suñu temps cent trente six milliards comme ni ñu bëggee jëlee suñu vaccin yi may ko yeneenub réew waaw mais xanaa ñun Sénégal ñun moomatuñ ko. wala boog ñun ki nga xam ne dañ ko defal délégation de pouvoir dañoo mujj far léegi ne ko réew mi jox nañ la ko def ko royaume bukki di mat Karim Wade. Mhm. fii la ñi toog di seetaan. mu matt xalifa Sall kooku tey moo mboq Sonko bu ñu ko gisee mu mboq ko waaye yaakaar ngeen ne ñun dana toog di wax naan wuy bàyyi leen justice bi mu def liggéeyam et lii xew tey war na leen ne war na leen wan ne ñi ñu jàkkaar lool du ñu ay nit ñu am élégance maanaam du ñu ay nit ñu am euh, euh, euh, ay raffiné wuñu ci li ñuy def dañu lay rey takk seeni weer ñëw jàkkaarloog yow jaale la parce que la ñu nammaloon Ousmane Sonko bu sotti woon dañu koy toroxal ci kanamu njabootam waaye fii mbir yi mujjee ku ne xam na ne kidnapping la ku ne xam na ne dañoo bëgg a salfaañe àqu Ousmane Sonko ma ne usmaan Sonko la muy xalaat yéene bi mu am ci Sénégal nit ñi dañu ko bokk ak moom Ousmane Sonko ni mu bëgg Sénégal doxe nit ñi dañu ko bokk ak moom Ousmane Sonko ni mu bëgg Sénégal jaar ci yoon ngir ñu doxal lépp ci yoon nit ñi ànd nañu ci ak moom mën nañoo tëj Ousmane Sonko mën nañoo wàññi doole Ousmane Sonko waaye nañu jàpp ne douze millions wala treize millions de Ousmane Sonko ñu ngi ci réew mi te yéen ñii ci ngeen bokk. Mhm. yéen ñi may déglu ci ngeen bokk bu ngeen toogee di dinaan du yegsi ci man moo tax yow borom cere bi jaayatuloo ba jaral. jaayatu moo tax yow mii coxeur bi la nga daan am amatoo ko moo tax yow borom jakarta bi tey essence bi yokku na. nga xool essence bi ñaata lañ jël essence xam nga ñaata moo nekk ci taxe ci essence 65 pour cent boo jëndee 10 000 francs essence 6 500 yëpp ay taxe la 6 500 francs yëpp ay taxe la ñiy jël xaalis boobu mooy ñiy noos ci biir réew mi. ñiy jël xaalis boobu mooy ñiy gundaandaat ñoom la seeni doom di noos almadi ñoom la seeni doom di génn ci couvre bi ñoom la seeni doom di dem ci yeneen i réew ñoom la seeni doom di dem sali di fa jël ay euh, suite ak nangam sangam di fa noos kon encore une fois mbéjum kanam borom moo koy fajal boppam jóg leen taxaw ñu défendre Sénégal jërëjëf mu ko ñu koy jaajëf bu baax dañuy dañuy dañuy dañuy jox ku ne ñu dal gëm sa bopp gis nga <laughs> non président